nu mu demee rek sant sant bu baax. di ñaanal gis naa alhamdulilah du ñu yaa dañ doon bàyyi nag. ah non non parce que problème sa doom mën tey say fii ngay ah, la eh? <laughs> a laaj. Ah, ah. xam nga yow kër gi. Mhm. bon man yow yaa leen gën a nite. yaa leen gën a xam ci xew ci dëkk bi yaa leen gën a mën a suivre actualité. Mhm. damaa gis ministère du commerce. waaw décret bi mu génne concernant prix loyer yi est-ce que nit ñaa ngi koy appliquer Ndiaye. ah bien sûr. Hmm. boo ko appliqué wul euh, loi bi dal sa kaw. Ah, kon de loolu neex na. loolu la parce que te am na nag lu ciy réeré mbir ah. Hmm. parce que ñi wàññi woon 2014. waaw ñun seen ñu wàññi waaw. Ah, foofu la mu ngi noonu kon décret 2014 bi concerné wul ñi. voilà bokkul à ci. ah d'accord ñooñu ñooñu moom comme wàññi wuñu woon ñoom dañuy wàññi far force. voilà damaa xool gis wàññi bi am solo lool. ah ma ne ah lii de buñ ko appliqué dana baax. Ah, ndax xoolal fi mu ne booy fay de zéro à trois cent mille quinze pour cent lañ la wàññi. Ah, xam nga loolu baax na am na fu mu xaj. jàpp lañ hmm? de trois cent mille bu fekkee moom ngay fay jëm cinq cent mille ñu wàññi la dix pour cent. dix pour cent. Ah, mille nag jëm ba ca kaw moom cinq pour cent. xam nga li neex xam nga ñooñu ñuy néew di doole. déedéet. par étape la. ñi gën a sonn ñi ci topp ñi ci toppaat ba ci ñi ci topp. mais xam nga na ci ravitaillement ak yeneen ak ah, yeneen. ci kër gi courant beeg yooyu. location moo sonal nit ñi ah. moo sonal nit ñi. on est ministère du commerce gi kan moom li fi ñuy bële baax na kat. Ah, da koy def defoo ko numéro vert bàyyi bii gars yi jël ko nga la ceeb woo la nga ñëw wuy ci wax leen moo tax la moo tax defoo li ñu wax. alhamdulilah bu daan di tegu sa kaw daan tegu sa kaw. mu kay léegi jàmm am. Hmm. bu leen neexee xam ngeen li ñu leen wàññi leen mhm. ñaata ngeen doon fay xam nañ ko fii du 300000 300000 lañ doon fay wàññil nañ leen wàññil ñu 15 pour cent yaa loolu kon nag mu ngi noonu appliqué leen ko woo leen ko ngeen ne wàññil nañu 15 pour cent ngeen xool lan la wax ah wax na <laughs> loolu la yow da na merci merci jërëjëf ah, ministre commerce moom fi ñu fëlee baax salaamaaleykum. comment ça va xam nga seen problème yéen du ngeen mën a déranger nit heure bi kenn du fi ñëw di jaay ay promotion xamal la ngay jaay nii yow sarase yi li tax yow mën a woon def rase yu gudd nga def ko sarase yu say yu mel ne ay laxas ni ah. mais maman déedéet déedéet dafa ndànk may leen nit ñi jàmm heure pause dafa am heure nelaw am heure sieste am yéen xam nga wu leen benn heure yéen pour yéen la neex ngeen a jaay. te du fii koñ bi gis ni muy calmé du da ngeen def ndànk ñun tey gën nañu dara jot dara jot nañu wax dëgg yàlla ab rayu ñu mbuur rayu ñu jënat rayu ñu rayu ñu melentaan rayu ñu dara bilaay c'est bon waaw ah, mais maman jërëjëf man su ma la nuyoo soo la seen kër xalaat soo duggee nga may ma wax même li may jaay soo ko jëndul xëy na am na keneen ku nekk si kër gi ku koy jënd dooda xam naa loolu xam nga liggéey sax baax na gaa jaay baax na mais heure bi ngeen xamul yooyu temps bi temps bi heure bi heure sieste la ni ay sieste mën nga maa may temps ma présenté wu ah. nga xam lu may jaay présenté man maay copain aw bi aw laa bëgg a seet si xam naa ne yaa yaayam mosuñoo gisee c'est normal la je suis entièrement d'accord avec vous ndax nii nga doxalee sa prouve que ni man aw mi ma bàyyi fii mi ci ay loxo yoo xam ni kenn du ñëw rek dugg nii moom je suis entièrement d'accord yaayam. yaay si si si si. <laughs> suñu gisee. Eh, baal ma de baal ma non non non c'est li ma def nii man war ma kii ma naa ak yow nag. dinañ gisee te dinaa xam ni nii nga sàmmee njaboot gi nii non vraiment d'accord naa ci. man maay bàjjenam maay bàjjenam awa. ah bàjjenam maanaam maa yaayam daal awa daal maa nekk moom ci biir kër gi. d'accord dama la expliquer pour nga bañ a dugg ci kër gi ñu lay ñu lay woo di la tegal fii kenn la fi tegal ko dut man. d'accord yaa ngi dégg. awa maay yaayam awa maay tàntaam awa maay baayam maay ndeyam maay léppam kër gi boo fi duggee bul déglu bul xool yow salaamaaleykum maaleykum salaam ana awa rek dugal. d'accord yaa ngi dégg añ bi nga war a añee sax ma ne maa ko toog. bu bu tey bi maa ko toog dinañ gisee. maa ko toog waaw jërëjëf dinañ gisee. genre de mille. dinañ gisee. genre de baba ba de. non amul problème amul problème ma baax. merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal. bëggoon naa nag ma am lu ma waxtaanee ak yow balaa ngaa gis change. Mhm. bu moom turam nan la nga di sax. Zanzu. Zanzu. moom moom ñag la. Ah? ñag la Zanzu ñag la. non non loolu yëpp amul solo wuy ma man waxuma. déet am na solo. ah papa nag li ma lay wax nii man moo ma gën a ñor doo ma bàyyi ma terminer ba pare nag. waaw waaw waaw aja. waaw ah, da nga maa mën a énervé trop. nii sax xamatuma sa lan laa. dama ne dama ne fi mu nga toll boo énervé sa bopp nga koy teg. toujours bu ñaa nga ma énervé ma bàyyi ko sa yaa koy yëg. waaw lan la tur du ma laaj turam tur yi du koy tur woowu la tudd kay jeexal na wax bu fi nekk di laaj ay ay laaj yu xóot. waaw du ma laaj ban nationalité loolu taxul ma lay woo. Hmm. xam nga lan laa bëgg. Hmm. su ma sañoon bu du fekkee du fekk du fekkante ak ci kër gi. ah lu tax. Pape bu daf maa de bu daf ma iñaane ndax yaa yaa ngi gis li mu doon wax ci saal bi di wax ay wax loolu yëpp lan moo ci yoonam di enquête mel ni kuñ yabal loolu yëpp amul xorom papa. léegi nag su ma sañoon yow nga boo ko seenee muy ñëw sax nga fexe yóbbu ko feneen ba genre dem ñu lijjanti dañuy lijjanti. Hmm. ndax papa nag dama lay wax hmm. suñu taraangaa ngi ci de. genre lim mu wax yëpp ni dala koy defal bis bu la ko defalee doo ñëwee kenn sa benn morom dootoo ko ñeewati te situation yoo xam nga ne li ngay dund nii metti man bëgg naa laa jëndal beneen kër nga dëkk fa nekk ci sa jàmm kenn du la déranger léegi nag boo xoolee nag ba mu yàqal la ko ah mi ngi noonu man xam naa ne ñoom ñaar bu ñu gisantee dina ko wax loo xamante ni tey xam nga ne borom xaalis yi dañoo muus ñi am xaalis mhm. dafu ñu de boo leen tëppee di leen questionné di leen questionné bu yàggee dañuy gedd dem te man xam naa Zanzu hmm. su ma sañoon nag nga wax ak buur wax nga dëgg sax moom fii lee ne di jaay ay DG ay affaire yooyu te kii ni nga ko waxee faalewul DG hmm, kii daa daa yor ay dërëmam da koy liggéey yaa ngi dégg li ma la wax waaw problème bi mooy moom boo bëgg du toog fii du fi toog ndax moom man lay xaar fi mu ne ma woo ko naxante moom te duma ko duloo te am naa lu ma fër ci wéyu béy sax hmm. dégg na kër gi moom ko de kër gi nii hmm, dégg naa kër gi day wax nii rek waaye jëndu ko de hmm? li ñuy tëg din mu jigéen naan maa moom di ba li ci kanam ay bët papa léegi nag situation boobu ma la bëgg a génne looloo ko naqari <laughs> dama ni moom moom du yàlla toujours ma ko ko nee naa ko yoroo kenn yàllaa yor ñëpp yaa ngi dégg beneen bi mooy nit bu la li nga wax di ci xaw a rax sax ndax nit buy dugg ci kër yor juróomi million di ko may sarak ñi ñu koy may seen doom war na ñoo xam nañ koy accueillir yaa ngi dégg waaw dégg nga fi lay jaay di yëfi déeg ak rek muy fuuy te moom kër gi kër gi sax moom moomu ko ah. te waa ji mën nañoo jëndal kër xam nga ne bu ñu yëndalee kër loolu noppaluñu papa chaque ah, weer li ngay fay xajul ci ñun billaay xaj na ci ñun ah? xaj na ci ñun affaire soxor yooyu damaa xam waaye waaye dama ne yooyu yem yow yow na temps fi pas loolu lépp ci am man lay xaar moo ko te kenn du ko di yëkkati mbagg jaay affaire yi hmm. moom bu ñëwee moom mbaa dina nuyoo dara kon la sa waa ma Jojo waaw ah, xanaa ma woowaat ko téléphone kon ah, ah sànq na ma de bu ñëwee daf leen a bëgg a jox cinq cent mille wala trois cent mille daf ma doon laaj cent cent ma ne ko loolu yëpp jaru na ko bàyyi garaaw xam nga yow 5 millions yi muy maye kay. bari na dafa nang arrête kan la ko jox. waaye di yow la koy may. nuyoo boobu moom ko. nuyoo boobu muy indi loolu pour ñun la. nga naan ko bàyyi la matu yow yaay dogal. waaw papa lu leen ma ci nekk. la xamul li ci ne mooy yow jëlal li nga moom bàyyi yow li ñu moom. woowaat ko mbaa ma foo koy jotee bala moo mu ñëwee mu nuyoo yow lan la. kon xanaa ma woo ko léegi. a ah? léegi mu agsi. waaw ah, mais message ko. daf may dégg sama waa message ko. waaw ah, waaw message message écrit luñ ciy noonu. ah pour man dama. ah <laughs> man yow naa di tënk léegi de. ah mooy ah, yow. <laughs> ba bëgg dërëm nag. barke yàlla da ngaa bëgg xaalis yow message kii laa wax. Ah, waaw hmm? jeex na ah oui ma li ma la wax bu ko fàtte de. bu bu bu mu fi nekk di def sa yooyu moom mën naa bu doo ko woo téléphone ni ko bu amee fu muy dem mu dem fa. doo ko wooyee sax mu ne kii da dul ñëw déglu moom lay mën lay déglu du ñëw. waaw kon xam da ngay posté si buntu kër gi xaar ko. déggoo ne buur du nekk ci jotaay bi. Hmm. am nga mooma. naa yow du la yàqal man ah, ah. bi may bëri la de. man mu ëmb lu na voilà. Ah. am ma metti trop am naa gàcce lool ruus naa lool kër gi nag dafa baaxoo di am ay tooxi doon. lu ma wàcc fekk ni diw ñoo ko def daaw ma bett mais li xew tey ak ñi mu dal bett na ma lool ndax xalaatoon naa lu ne mais lii musuma koo xalaat mu jóge ci yéen papa suñ xool ay kilifa muskalaf yu tonni yéen xale yi wër leen fii ci buntu kër gi ngeen di ceebu jën kii di ko fellu ci baarambay kii di raas kii di mu laay jigéen teg ci lëmbal ci ay kilifa ay mag lenn xam naa ko bu ngeen gisee seen bopp ci tiktok hmm? lan wala facebook wala youtube moom leen bett ndax xale yi fi mel na loolu lépp dara tegu ko dara dara dara dara lu dul seen bakkan ak xaalis waaw mais je vous avais averti concernant Pathé il est sournois ce gosse il est dangereux Pathé il est très malin malheureusement il atteint toujours son objectif et vous l'aidez toujours paate fexe ba jox leen sàngara ngeen naan ko ci ay jullit mus ko def pare mu koy glorifié wu di ko wax na ko jabaram bàyyi ay dof lan wan leen affaire bi naan leen ko du leen def dara tegal leen deux cent bi pay yi mel ni ñoo xamante ne dañoo toog vingt ans naanuñu ñu jox leen ndox paate lu ne nañ koy teg seen der boole ko xaxataay yu metti ngeen génn ci biti mu toog ànd ak booy di di reetaan ah ci mbedd yéen xamu leen ba xam génn ngeen yéen ci mbedd bi xamu leen lool yéen sareet yi sax yéeg ngeen ci sareet yi sareet yi te boo génnee dëkkandoo bi nekk fii birigam yi ak ak ak ak dellu suufam bi demal nga baalu ko ax parce que toj nga birig yi xam te dañ ko birigoon ci journée bi yëpp toj nga fi mine de rien toj nga fi trent birig lan kan maa noo koy fay man maa seen 200000 fay leen ko ci te dèjà laalu leen dara pare ci. talu leen sax 200000 bi mu leen koy dig xam na ni du ngeen tal sax 200000 yi bàyyi leen paate ngeen ni du ngeen ko bàyyi. man de moom man man xool man à partir de léegi nii paate bu ma ko gisee dina nu àtte ndax ñun bi ñuy naan paate daf ñu effectif la nan na ko waxati sax yaa nga jàng tubaab effectif hmm? effectif lan muy apéritif la xam nga apéritif apéritif xam nga pour ngeen lekk pour ngeen pour ngeen dellu xale apéritif du doon lu ñu naan waaw après bu ñu waxee apéritif teg ko ni ñu dama leen di gàtt woon apéro sax ñu ne waaw xam ne li ngeen xam ngeen li ngeen naan apéritif ngeen jël ko naan ko yéen a ngeen naan xanaa liiru leen ko danoo jàng ba liir da ko def ci ay mbuus sotti nu ñam leen di di sotti di ñu jox naan per yéen yéen maanaam ci li ngeen jàpp ñaata kaas ngeen naan. waaw ah, ilaaha illallaah ñun koy ñaari butéel yéen tegoon sa waay. ñaari butéel ngeen doon. naan na butéel ma naanu butéel kay moo tax bi ma génnee léegi xale yi di ma pa pa wengal ak pa pa pa lëmbal. gone pël bii wax na ma ko léegi. ma yaakaar da da da baax na ma. wax ma la lëmbal mi waaw lëmbal moom yaa ko doon def. def naa lëmbal kay moom bu ko xale yi waxee dëgg la man sama papa Thiam man man man papa papa Thiam man man papa Thiam lan. mu laay cigin ngir mu laay cigin. est-ce que ñun est-ce que ñun réellement ñun naanoon nañu ko est-ce que li ngay wax ñoo ko def daal. xam leen dégg naa ko moom dégg naa leen bi may ci biir ci biir yi wax maa ngi dégg booy naan waa koñ bi xaw ma. kaay leen xool kaay leen xool. Ah? dégg naa ko quoi. ba lang. waaw loolu laa mujjee dégg daal. xool beneen booy bi naan waa koñ xool lu mm-hmm. ñu tàccu. gis naa la ngay fecc yow. tur la yëkkatu dañuy ñaan ak caam mandina aussi boole ci loolu booy doon nañu waay man ñëpp lañ tudd tudd ah déedéet tudd waaw caam mandina xoolu mandina ñu ñaar ñëpp lañ tudd njëkk a wax sax caam nga mandité xam fu mu mën a feeñe ci nit parce que yow xool daa sol mbaxana mi sa waay mbaxana mi moomoo ko xool ah, mbaxana mi dam nga nga gàddu xam nga kii mandi wut bi na mbaxana mi da ngay mën jël maxane bi noonu sax. Ah, déedéet déedéet bu jëlul teg foofu. man de yàlla mi ma tiim xam na ne bi ma àggee sama kër ba sangu ba noppi laay doog a xam ne maa ngi woon maa ngi won ni saay yi. man kay li ma ci mën a jaaxal mooy bu fekkee waa koñ bi sax noo yor fi de wooyi alhamdulilahi rabbil alamin sa jabaat bi waaye moo bu ko jotee gone gi moo nu mu hmm? waaw. ah. Hmm, booy bi na xam naa moom bu génnee sa wuttu moom te ni nga njoole nii. gis naa si beneen nag keneen beneen booy bu gën a garaaw. Hmm. booy babet booy ba ma xam foo ko fekk mu ngi li nga caméra beeg kéem boobu personne boobu moom moo gën a dangereux koy gis leer na ma da koy wasaare. mais sérieusement cent mille moo tax ngeen màndi parce ñëwaat ci affaire bi quoi. moom moo ni ma nan naan kan ñan ñam nu bokk deux cent mille yi moom lu ma dugg ma ci léegi challenge lañu waxoon de dafa challenge la wax léegi challenge moo jàng école moom moo xam challenge naan ku dàqan am deux cent mille léegi moom moo jàng école supposons yéen a ngi ñu yàlla ni leen moo taxoon ngeen naan bi ngeen nee jaay lu ngeen hmm? ko mën xalaat leen ci xalaat leen ci. boobu bu demee na laa ruus ci toogaay bi. yow da ngaa màndi woon wala. yow yaa ma gën a màndi waxal yàlla ñu ngi àllaaxira nee na ñu ngi àllaaxira doo tontu yàlla ba pare doog a wax ay affaire mbaxana fii laa ko fekk sol ko xaw ma ko ko moom. waa du sa mbaxana. waaw bu dul sa mbaxana tamit na fi yem rek bu ko nettalee bu mooy rey alaaxira kay waxal ci alaaxira ji ñoo ngi alaaxira nii toog kanam rek alaaxira ñu waaw man ko yàlla mun ko yàlla baal baal baal ma yàlla dafa comprendre noonu non non non yàlla ni xaalis moo taxoon nga màndi nga ni yow yàlla moo taxoon xaalis seytaane moo taxoon nga màndi mu dugal la safara yàlla dina xam ne yow aussi xaalis moo tax man da nga doon def challenge challenge mandi nga yàlla moo tax dafa xam nekk fa di lijjanti ay challenge ak yaa lijjanti wu challenge yàlla mandi gi la lijjanti jullit bu toll ni yow ngay naan yaa ñàkk jom yaa ñàkk jom yow mi jàng école xam challenge yow mi jàng ma challenge yu lu bon la man ma bàyyi challenge ah, na laa xamee sa fa laa koy déggee ah, fa laa koy déggee de Maxime. tey moom il ni rek il ma waxtaan ak yow. ma du xewati ma jàmm ah. ndax su ma sañoon dëgg la laa fi nekkal waaye bëgguma safaan ci kaw kenn te yow gis nga ma fi ba tey sam keroog fii rek jox na ma leçon sa kanam bëggul ma lay wax dara bëggul ma lay jéggi baat bëggul may jële lenn loo xam ne rek safaan la di ko teg sa kaw xam nga keroog doon na ma fii sa kanam instant bi ma seesee ba tey gisoo kenn rek ku jógee fummi xaara wala nga jóge kanel wala ku jóge fuuta ñëw fii seet si ma parce que dañ maa bàyyeeg yow depuis ba may tudd bañ ma tegee sa loxo ba tey ñëw ñu fi benn yoon pour ne nemmeeku xam nga loolu dëgg la ba tax na su ma demee bay génn kër gi yoon la ma waxtaan ci ak yow. génn kër gi nga wax de mu loo xelu ba génn kër gi lan la. gis nga la palmaan ñay mhm. ba xaw duma fi toog ba sama bakkan di fi rot keroog Fatou Kiné sama néeg la dugg jël set tiimale ma ko man damaa jékki-jékki rek mu mel ni dafa am ombre bu ma tiim ma geesu def ni rek yem ci moom tit gi ma tit keroog mosuma koo tit ba may ëmb ba tey dañ na man nag ma sëy si waaye kenn waxuma ma toog fi ba ay nit ñu manqué di ma di ma rey li mu nekk nag moom nattu yàlla moo ko teg keroog fii lañ toog man ak Amina ak moom lu ne mu wax ko fekk man ma door a jóge voyage xaw ma lu géej gi di riir ndekete yoo ci ay état am la nekkoon te man xaw ma ci dara ma topp ko ci bëgg-bëggam lu ne wax nañu ko fi mu muñ ree daal di dem li ma bëgg nag nga wax buum mu internet ko balaa muy ëppi loxo sénégalais day yor feebar téeméer war koo faj mu di ko sàgganee ba téeméer junni di ko di ko ci laaj te du ko ci am jàpp ci rek nga wax sa doom mu internet ko ndax ñu ñu mën a nekk jàmm. dégg naa sa wax umu waaye dafa benn baat boo xam ne boo ci jaaree te neexuma muy nit ku manqué ku manqué am kenn dafa feebar. yàllaa ko ko teg noonu ma ko dalee mën na maa dalee mën na laa dal mën naa dal keneen li muy def euh, ki li muy def épargne wu ci kenn Amina mii def na ko ba mi nag daf ko harcelé man mu taxaw sama buntu nekk di fëkk di dóor naan ma génn sama jëkkër moo nekk ci biir ngeen xam ne yooyu yëpp nattu yàlla nag wax naa waaye xam nga moom dafa bari sentiment da ngay seet bu mel fi mu yéen bu ngeen amee seetlu sax da ngeen di xam ne bu nekkatul bu boo ko tegalee lekk c'est à peine si dina ci lekk bu toogee il a toujours l'esprit ailleurs affaire bi daf koy ronger ni ki ne daf ko métti parce que ki ne est sous sa responsabilité quand même quoi qu'on puisse dire yéen lu muy métti métti ci yéen ci moom la gën a métti waxtaan nag moom am na yërmande mais man moom manqué sama ay démarche dem naa ba dalal xel keroog duma ko dama ne woon duma ko wax kenn maa ngi def sama ay démarche foofu ci docteur Tine am na yu ma wax ma di ko def fi mu nekk nii su ma paree damay ñëw rek mettre bu devant le fait accompli ñu jël ko yóbbu ko interne ko quelque temps toppatoo ko daal nattu la rek toogal nga muñ ko ma muñ ko keneen muñ la ko yàlla loolu du dara loolu moom waxi dem moom teg ku ci suuf dañ leen a war seen jëkkër ji boo demee nu muy def ah jàppale leen seen jëkkër leen ko yiir leen ko ngeen ni mu mel fi mu ne fan yi waxi dem moom teg ko ci suuf yaay bu ma ko déggati dinañ ci trouver solution. su may toog tamit damay toog ci ay conditions yu wóor dootuma nangu bokk ak moom jotaay ndax mën na maa song à tout moment. te man ki ne sama xol mayu ma ma di ko def yenn nii sama néeg nag ma nekk faak ma bañ faa nekk dama koy tëj parce que bëgguma sikka moom benn xarma yàlla ndax ni mu mel taqalikook sagoom nii bëgguma di ko def dara ñu naan maam moom ñoo yem ci kër gi dëgg yàlla. bay bon nag ngeen teel cee wut solution murit boo ko tane danga koy tane ki ne xam nga ne en temps normal bu ko dara dalul ki ne melul nii kon bu melee nii nañ ko jàppale muñ loo ko yàlla docteur Tine jox na ma rendez-vous danañ ca dem bu soobee gàddu ko yóbbu incha allah ah, ah, comme loolu nga wax ma def li nga wax rek toog rek nattu bëggatuma di tegg say wax nattu yàlla la yàlla bu ñëwee dañ ko ànd muñ ñun ñëpp rek dana jeex kan baax ah, ba jëmm ji di chanson mi mhm. moo fëgg léegi buntu kër gi mais bi ma xeeñ chanson mi mhm. ko gis kër gi rek sa kër la mhm. euh, dafa ko comme toi defal lu la neex fi tasul wëndeelul sàllar ñu ko defal lu la saf ndax xale bi nga bëgg muy sa muy awa man lañ ko waroon a tuddee maaro eh, eh, eh, góor day jege ko waroon a tuddee yàlla def nañu tuddee ma xale waaye man jikko ne ci man yëpp moo ne ci moom mii am na fit am na fulla am na fayda ñun dee tabax dafa nangoo liggéey demul dikkul mu ngi ci pooju ndey mag pooju baay ak sama pooj bi man nii yaa ngi dégg mm-hmm. muy xale boo xamante ni joli cœur mignon gentil généreux mm-hmm. waaw lo lo longu fa femme longu mooy ku njool léegi nag yàlla dugal na ci biir kër gii lépp xéewal la lépp ay gëneel la yow changeon mm-hmm. doomu ndey Roger Mendy nga ndax ndax man Roger Mendy bi ma woowee am na lu ma wax ak moom léegi nag cas bi nii la demee kër gaañ gi def ko comme chez toi. merci tëddal jaaxaanal. defal la saf. maa ngi togg añ bi léegi añ bi pare nga añ ba suur awa accueillir la nga fetasu kii nag mooy mooy mooy mooy mooy géwél juddu kii kii mu ne la ya ya mooy géwél juddu kii ah déedéet loo wax tey moom kenn du wax kenn du wax kenn du fii moom ma ma gan gi moom maa ko accueillir kenn du géwél juddoom la géwél juddu kii allahu akbar fu mu jëm moom ñoom ñaar ñooy ànd bu amee moo koy may man nag yàlla def na maay bàjjen ci biir kër gi ndax maay ndey kii bàjjen mooy ndey mooy lépp mhm. bàjjen ay bàyyi yaayam nekk fa maa fi ne mhm. lépp lu war a xew ci kër gi sama loxo lay jaar lépp nag bàyyam a ngi nii toog sama mag la ñoo bokk ndey ak bàyyi mu baax bay bëgg a dee dëgg bu mu gàccee fi ko gis ni liggéey la xam mhm. kër gii ni mu toll moo ko tabax ba mu àgg ah dugg ci njabootam nga war a xam ne ki dafa am jom de xaman kii xaas yóbbu kii fëkk yóbbu ko kii ay kër yóbbu ko dara yóbbu ko ci loo xamante ne lu ñàkk fay dara lépp lu fi am moo ko fi def wutal ñu ñeenti mindaan ah ah ñeenti mindaan mhm. ñii xëy ñii di bale ñii di raxas ñii di togg ñii di fóot ah mhm. indi ñu ay bëkk néeg fu muy jëm ñoo koy yaa ngi dégg fu mu jëm ñooy gàddu ay musuwaar fu ñu jëm ñooy gàddu ay si ay kurusam fëkk yóbbu kii fëkk yóbbu ko man mi fëkk yóbbu man mi bàjjal ndax sama doom ji fëkk yóbbu ko mm-hmm. ndax xool ko tu es de elle est toute belle tu es belle merci bàjjal tu es belle merci beaucoup Isabelle la parole merci Euh, euh voilà merci beaucoup soyez le bienvenu voilà euh, cent ah, ah, tuutee toujours non non la nit bu tuutee toujours amul yàq comme nii day wala moo tax cent jours amoo amale ma la waaw comprendre yooyu yëpp amul problème ah Sanzou. Sanzou waaw d' accord d' accord. plus connu sous le nom de Aladji Tuuti. c'est-à-dire. si vous voulez Aladji Tuuti ici au Sénégal sax. gis nga li may waxati boo tuutee daa tuuti moo tax tuut. waaw gis nga waaw. tuut tuut tuut. oui tuut yi. fii Sénégal ah. waaw tuut kay. Sanzou. yooyu yëpp amul solo wuy ma yëpp am ay ku ne am nga dàkkante. du dëgg ah ku ne am nga am nga dàkkante. Mise loolu lan la surnom la voilà voilà voilà voilà Sango. merci beaucoup. Eh, di la xamal nag dugg nga fi nga war a dugg. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye nag fekk nga fi ñoo war a fekk. Mm-hmm. kii ci doom yi la bokk. waaye doom ju fonk la. dëgg la am na fulla am na jom. nangu naa liggéey. kii njëkk liggéey ci kër gi. yëkkati salaire am ñëw teg sama loxo. ñu koy jiiñ lu ne. laahi. ndekete dem na lijjanti liggéey mais ba mu ñëwee indi salaire. ñëpp mm-hmm. ñëpp ñëpp a euh, yaa ngi dégg beneen bi mooy. Euh, ñëw nga bëgg si. ku fees del. dëgg la ah ah vierge. Mm-hmm. waaw ah ah. ma gis dañoo am gan. yooyu yooyu déet mais géwél xool lu s'il te plaît. bàyyil ma wax bàyyil ma wax voilà tu sais <laughs> ah voilà c'est un grillon ah voilà voilà toujours il demande c'est ça voilà ok bon euh, léegi changeau kii boo ko bëggee ñun dégg nañ li nga am yëpp ñun xamuñu la moom moo la. Mm-hmm. d'accord waaye ñun fukk yóbbuwuñu. yaa ngi dégg alal taxu ñuy may bëgg moo ñu tax mën a yor ñu lay may dëgg la moom na comme nit def koo bëgg ñun kilifaam li ñu war a def mooy may yaa ngi dégg ñaanuñu kenn saraxuñu kenn waaye lu ñu waaye jox ñu jël ñu jël merci merci yaa ngi dégg waaw ku ñëw nuyoo say goro nuyoo leen war a nuyoo ñu jox la lañ la war a joxe ah, moo jeex tàkk moo loolu la de voilà gis ah. a noonu a dem merci beaucoup encore. Badiane comme on dit ah merci remarqué. Mm-hmm. parce que mënoon naa dugg. Mm-hmm. sone sama parfum bu neex doo ko xam. doo ko gisee itam doo ko wax. donc merci d'avoir remarqué. Euh, may sant aussi vraiment. Mm-hmm. ci teeru bi ngeen ma teer lii ça prouve que ni dugg naa ci këru kilifa. sa prouve que ni dugg naa ci kër goo xam ni moo foofu laa war dugg. li ngeen wax aussi c'est vrai. samay am-am samay immeuble wane dëgg la c'est mais xam nga fii comme dara mënul nëbbu. Euh, nit ak ay gorom ndëbboo xaju si. déedéet immeuble bu yooyu ñuy wax c'est ñaar ñett yoo gis sama loxo bi <laughs> ci kër yooyu ñuy wax benn boo wàññi ñaareel ba ñetteel ba maa ko moom donc li ma doon gën a rêvé sama àdduna mooy gis jabar joo xam ne élève vierge. ah booy jabar joo topp bàyyi mais kenn kenn wax. Eh. non wax xool wax de xool s'il te plaît. ma dem kenn du ko dégg. waaye yow dundal waaye yow man yéen ma fi woo. boo loo xamante ni waaw man. soo wax waaye yow bu ñu la fi ñibbi. boo bañee mu ñaaw nag da ngay noppi. waaye lan la yow xoolal xool yi eh, eh, eh, muy wax laay laaj teere yi ban boor la ko am yi nga buy bëgg ko moom yi mu ci ñu ñaan ni ku ne noppi ku ne gis mètre kaatay ma dem xool ma dem non waxuma oh, sàngara mais ah, s'il te plaît s'il te plaît quand même ah ouais voilà xam nga ay mag yu miinante moom nii lañ mel lan la da ngay noppi du ma noppi damay wax ah, da ngay noppi rek noppi damay wax lan la lan la gan gi kii dox ay tere pare bu ko fi rek naan gan gi yéen rek dëggal ko moom ñun ñëpp bokk da ngay def daal damay dugal sama kenn waxu ko la damay dugal sama participation continue merci merci damay dugal sama participation merci yow da ngaa yàq noppi de tamit nag gan kenn du ko ñaan bu la lay may da lay may. déggul ma ñaan ko dama ko laaj ban côté la ko am pour bu mu demee noonu rendre visite. waaye waaye dafa nekk waaye li noppi rek bu la waree jox da lay jox wax continue. merci ba la ilaha illallah. continue tifli ci kanam nga noppi. boo ma tifli ma tifli la. sans eau merci merci bon je disais. moo tolloon encore. koo xamante sax kër yi kër yi euh, ma doon ñaan yàlla. mooy jabar boo xam ni. Mm-hmm. maa koy jëkk a xam mu doon jabar bu vierge. donc su ma ñëwee fii. ci sa biir waxtaan ma dégg ni musul sëy mm-hmm. xale la donc loolu dama ci a sabar. te alal ci ma yor. am na ñu fi ñëwoon dañ leen a jabar la ñu bëgg. alhamdulilah mm-hmm. alal ci du ma ko may n'importe qui parce que dañoo ñëw dañu jaay xam nga yow ni nga amee kam fule fekk leen ci. dañoo ñëw waaw dafa am réunion. Mhm. moo tax c'est un DG. ñun xaalis sonalul nañu. donc euh, ku ñu may nag ñu jël. doomu baal ma laaj la benn question rek. doo ko laaj doo répondre doo du dégg du dégg. damay laaj benn question amul boo déglu boo déglu ba daan. ma ne répondre am si parce que ma ne jàpp. muy ay milliards. waaw benn question. mënuma koo jar ñoo man rek sëriñ tariyaar la fi mu ne. Mm, yaa yaa yaa ko liggéey. alal ji liggéey ma ko dama ko doon ci sama baay. Ah. bëgg naa itam. waaw bis bu ma may soxla. waaw ñu am doom doom jooju ma bàyyi ko fi alal ji. Mm-hmm. mu mën cee dimbali ay nit. soxna yow pili keleer yow amagoo doom. amaguma doom. kii daa amagul doom sama doom bu njëkk gi nii ah. Mm-hmm. donc. Mm-hmm. alal jii ma mm-hmm. mënuma cee dund man rek. la ma ca mën bëgg ko ci mooy. am soxna soo xam ne musul am jëkkër. musul sëy. bu ko defee bu jamee doom ma bakkoog alal ji. sans eh, of kii nii. ah ah. continue. Ah xam naa ni daal vraiment su ma jugee fii dinaa leen booleeg la plus kenn ku nekk sa enveloppe. danaa ca def la ma ci war a def. nuyoo bi nag nuyoo rek la. du question wu dara du question wu jënd leen. question mooy mooy nuyoo bi ni nga ko jox. comme li ngeen wax ni nit ngeen ñoo xam ne fëkk yóbbuwu leen. defuma ko si pour fëkk leen. kenn ku ne ci yow. Hmm. dinaa wàññi million ya may wàññi teg ko ca loxo. bokkul ak dara ak la ma bëgg a def. bis boo leen ma ko mayee. Hmm. lañ cay def. Ah. fañ koy defee ak nañ koy defee lépp sama. booy fi mu ne xutba bi doo nga des kii sa jabar la de sax ah. xutba bi wa dara dara la yow Ah, xam nga man du ma doxee ah, xaalis donc man ah, bu mu mu wàññi ko léegi koy def da ngay bind turam jël numéro téléphone am après wax ñu li ñuy jox dégg leen jox seen chèque def ci ku ne nga dem retiré la liggéey ma port de sëñ xool laa tudd dama lay wax rek bu ci def au porteur ñu yaakaar port laa liggéey sëñ xool laa tudd ça bu dee sa carte d'identité wala carte d'identité keneen sax mën nga ko retiré mu yomb ci yéen au leen na xam hmm. naa ne ay mag ngeen voyage métti na mais bis boo leen dama leen bëgg a dugal ci ay oto climatisé bu daganoon da nga koy yóbbaale bu daganoon sax da nga koy yóbbu gis sa jabar la dama leen bëgg a yóbbu dëkk ba leen musul dem ñu def fa xew muñ musul def yéen ngeen woo seen mbokk yëpp kenn ku ne ci xew la muy sol dinaa ni téer ñu nattal leen defal leen ah. la may xewalee nag kon surprise la surprise laa lay defal merci beaucoup Goro kontaan merci merci Coro kontaan nañu trop kontaan nañu trop dem leen nga may ko ndox. dem leen ci biir dem leen dem leen ci biir. waaw dem leen ci biir dem leen dem leen ci biir. waaw dem leen ci biir da nga dem ci néeg ba sama sama néeg am na. ah dem leen sama néeg. dem leen Coro. merci merci voilà merci beaucoup. da ngeen merci. da ngeen ëppal ñaar merci merci. voilà. ma ne da ngeen ëppal ñaar ñi ci néeg. yow lan la yow. lan la lan mooy lan yéen seen kàcc yu bëri yi ngeen di kàcc pour lan la. yow lan la yow lan ah, la ci lan looy soxla di ñaan lan laa soxore du ma ko laaj ndax bàyyi sëriñu tara yaax la woon kii yow yow kii yow yaa fekk yaa fekk yow fu sa doom si tëddee moom ba nga naan am na doom ak yàq waaye non kii il est méchant il est méchant ma ñàkk sama de li nga biram laay woo waxo mi na waxo waxo waxo Macky Sall waxo Macky Sall waxo Macky Sall ay bàyyi sama yële moo wax li yow yaa wax li binom maa ko wax man maa ko dama faale binom man ah bon lijjantiwu ma ko yow lijjantiwu bi pardon waaye yow nga may xayla pardon nga ni binom saay lijjantiwu ma binom man maa wax lii man xamal ma naqare xamal ma naqare xool xamal ma naqare bu génne ci biti binom ñuus ko yow ne kenn rox gas ba ja kenn nga xafé ñuus man man nga ñuus man man de maa la gën a réew man man nga ñuus bu dee man rek xoolal man duma binom man maa la gën a réew gën la àgg dagaj lu leer naa la ba xoolal man duma ñii de man duma ñii de tuur na. waaw moo gën. dama dama tuur mën ngay ñëw. maa ah, la gën a réew. dama yow la bëgg nag loo bëgg yow. dama bëgg yow xos. non dama lay laaj rek yow lan la bëgg rek laa lay laaj yow loo bëgg yow. a